mbooloo mi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu ñëpp te njabootu Cheikh Bara Macky Sall de mënoon na koo bañ a jàpp waaw mënoon na koo bañ a jàpp ndax jàpp gi amul dara lu mu koy jural daf koy wàññi rek waaye du ko yokk waaye Macky jàpp nga ñëpp ah man damay dem ba kasto bi damay gënal bitti gi ndax kii mu jàpp te ñun defuñu dara dem ba ñun ñitu daara yi suñu kilifa yi xam nañ ne ñu ngi jàpp it donte ñu koy ñaan waaye mayewul ay tuut tànkam yu ndaw nekk ci kër gi ñu koy jël di indi fetal ñépp di ko gis toog lii ku ci waxul réew mi fi mu jëm du baax ñun sëñ Saliou yarawuñu woon nii te sëñ Saliou jóg waxil woon Macky Sall lii ñëw na fa ba tàyyi fa sëñ Saliou ñëw na fa de Macky Sall ñëw na fa fekk fa sëñ Saliou man mii fekk doo fa mu yëkkati ay yére jox ko tey sëñ Sidi Mokhtar ñëpp làkku mu ñuy jàpp di ñu tëj ñu ñuy jaay doole de ñu lim def waxuñu lum deful lu leen neex wax leen moom la def dañoo bëgg mu ñibbisi war nañ sëñ Saaliw de war nañ sëñ Saaliw <laughs>